asalaamaaleykum mbokk yi faral di ñu teewlu ci DKR 221 comme ça su ne ni ko taamoo defee ak yéen di leen nuyu. di dikk ak yéen ci xibaar yu wér te ñuy wax ci ki nga xam ne ni rek ba tey moom moo di faatu ki nga xam ni moom moo di Iba Thiam di rek xale bu jigéen bi nga xam ni moom moo faatu ni ki guddug àjjuma jàpp samedi 4 avril gi weesu fële nga xam ni moom moo di ca Almadi ci benn immeuble bu ñuy woowee immeuble Garden Park ci benn appartement boo xam ne nii rek benn doomu milliardaire buy wuyoo ci turu Rougui jaawo moom muy doom ci baaba jaawo ñu xam ko mu doon milliardaire fii ci Sénégal moom moo leen ko luwe woon moom ak i xaritam ngir rek ñu amal fa ab feet bu ndaw lu ni mel nag waral ba ibaam moom daal di ci mujje ñàkk ba kanam ci wàllum overdose maanaam jël li nga xam ni moom moo di wàllum sinebre ba mu rek mujjee ko ëppi loxo lu ni mel tamit waral ba ñi nga xam ne nii rek mooy ñenn ci ñi nga xam ne ñooy ay xaritam yi mu nekkaloon foofee ñu daal di leen di teg loxo ci jamono jii bokk na ci dam Amar di doom ci ki nga xam ni moom moo di Ahmed Amar doon milliardaire fii ci Sénégal te mu ñàkk bakkanam lu yàggul dara ci ab feebar biñ ci jógee ci moom ñu tudd ki nga xam ni moom moo di Aliya Aliya tamit di rek copine maanaam coro ci Dame Amar boo xam ne nii da koo jëlee woon ca France indi ko fii jëlal ko appartement ngir rek mu loger fa moom dam Amar moomu sax ci fàttali moom mooy borom këru ki nga xam ni moo di Soxna Nduur di doom ci Youssou Nduur waral tamit ba lu ni mel ñu jàpp ci ki nga xam ni moo di jajaataal Jaja Tall tam ñu xam ko muy liggéeyee la nga xam ni moom moo di ca Dock Pullman moom ba tey rek ci boobule lim ñu ciy tudd ki nga xam ne moom moo di luuti ba waaye après luuti ba ñu ciy tudd ku ñuy wax poupet bu ñu jógee ca poupet ñu ciy tudd ku ñuy wax neex ñoom ñëpp nag mu ngi leen fekkoon ci même moment ak ki nga xam ni moom moo di Iba Thiam ci boobule appartement nga xam ne fa la ñàkkee bakkanam te ñu leen doon jiiñ ne rek dañ doon jëfandikoo wàllum sineebar waaye nag ki nga xam ne ni moom moo di Aliya di rek corop ki nga xam ne moom moo di Dame Amar moom ginnaaw bi nga xamee ni rek ñii di takk der yi dañ ko daal di enquête ci la xamle ni ki nga xam ne moom moo di Dame Amar yëgoon na bu baax ne ki nga xam ni moom moo di Iba Thiam mi ngi jëfandikoo wàllum sineebar ndax moom nga cay yokku ni ki nga xam ne ni moom moo di Iba xaritam yi fa nekkoon yëpp ñu ngi ko doon rek jéem a proposé li nga xam ni moom moo di poudre blanche bi bu ñu ko déggee nag moom moo di sinébar bi nga xam ni mooy weex te ñu koy foon fóon boobee sax ba ñu ko koy proposé moom dafa daal di rek daw res maanaam dafa daal di bañ ginnaaw gi nag la ko jël ba rek daal di ci ñàkk ba kanam xëy na nag gars yi ñu ngi wax naan sax da ko mujjewul tàmm ci loolee tam ñi nga xam ne ni ñoom lañ téye ñu ciy tudd ki nga xam ne moom moo di Amadou Niane Amadou Niane nag la ko boole ci mbir mi du dafa fekke fekkewul dara waaye la mu def moom mooy recel de malfaiteur maanaam nëbb koo xam ne yoon da koy wër ngir teg ko loxo ba mu defee loolu nag moom ki nga xam ne moom moo di Amadou Niane di rek ci ki nga xam ne moom moo di Dame Amar biñ mbir mi amee dafa daal di contacter ki nga xam ne moo di xaritam boobu di Amadou ñaan Amadou ñaan moo ko daw ñëw jël moom ak copinam boobu daal di koy nag làq ci këram gi nga xam ne fa la dëkk immeuble mu doon ab immeuble mu dëkk ci benn appartement. ginnaaw gi la ñi nga xam ni ñoom ñoo di takk der yi doon def rek ak enquête ba daal ñu leen di xamal ne leen ki nga xam ni moo di Dame Amar mi ngi foofee kër Amadou Niane ah, ci lañ ko nag daal di teg loxo lu ni mel ba mu amee ah, ci la ñu daal di jiiñ ki nga xam ne moo di Amadou mbir mi moom it loolu moo ko yóbbu ci garde à vue bi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi ko nekk ci jamono jii ci rek gendarmerie bu Ngor ci jamono jii nag ñuy waxee ak yéen ñoom ñëpp kenn ci ñoom ah, bàyyeeguñ la ah, kiñ ci bàyyi rek moom mooy Rougui Diaw mi nga xam ni tudd nañ ko ci mbir mi ne rek moom dafa fekke mbir mi naam sax fekkewu ko. la mu def moom moo di moom dafa leen daf moom moo leen daal di rek joxoon appartement maanaam moo leen luwee woon appartement bi nga xam ni ñoom fa la jëyee ji amee te sax moom ba mu demee ci boobule enquête daf ne leen carrément li nga xam ne moom moo di appartement bi da koo joxoon ab agence immobilière. waral ba moom lu ni mel xaw ko cee seetal ñu daal di koy bàyyi mu dem naam sax li nga xam ni moo di enquête bi mi ngi woy te it ñoom ñooñee ñu téye garde à ñu mat ci juróom-benni doomu aadama waxaguñu waxi bàyyi leen ndaxte li nga xam ni moo di autopsie bi ñeel wàllum ki nga xam ne moom moo faatu di Iba Thiam génnagul tant que génnagul ñoom ñooñee kenn du leen bàyyi foofee la ñuy yemandeek yéen ci boobule xibaar di leen jox dig daje ni ki rek ci kanam ak yeneen i xibaar jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu bi. laaj bi samp ci jamono ji moom moo di nekk ki nga xam ni moom moo di Rougui Diaw mi nga xam ni moom lañu ne moom moo daal di loué li nga xam ni moom moo di appartement boobu ñi nga xam ni ñoom ñoo doon amal feet gi mu di Iba Thiam Dame Amar ak consort mooy rek ñañu téye garde à vue ginnaaw bi nga xamee ni eh, ki nga xam ni moom moo di Rougui jaaw dañ ko daal di déglu bàyyi ko mu dem mbokk internet yi nag di samp ab laaj di laajte li nga xam ni moom moo di relation Iba Thiam ak ki nga xam ni moom moo di Rougui jaaw parce que nee nañ boo duggee ci li nga xam ni moom moo di ci Instagram Rougui Diaw da nga fiy fekk ay commentaire ak rek appréciation yoo xam ne ki nga xam ne moom moo di Rougui Diaw da ko doon def ci ki nga xam ne moom moo di Iba ba mu saf sap ndax nee nañ doo dugg ci benn photom wala vidéo bu mu mës a def te ki nga xam ni moo di Rougui Diaw commenté wu ci wala sax mu wane ci boppam waral ñoom ba ñuy laajte ana lan mooy seen relation ndax boo dee seet ci li nga xam ni moom moo di ci commentaire yi ak na muy taxawee ci li nga xam ni rek moom moo di ci vidéo yi Iba Thiam doon dugal dangay gis ne ñoom ñaari xale jigéen yooyu jege woon nañu lool te xamante nañu lool ah, ci wàllum ah, li nga xam ne ni rek moo di yëfi àdduna ah, te it ki nga xam ñi nga xam ne ni rek ñoom ñoo di internet yi ñoom la ñuy laajtee mooy il faut ñu laaj ki nga xam ni moom moo di Rougui Diaw ndax mës xam ni ki nga xam ni moo di Iba Thiam dafay daal di rek fréquenté groupe bi nga xam ne tey jii ñoom la ñu téye ak ndaxte xam na ndax ki ki nga xam ne moom moo di Iba dafa doon jëfandikoo wàllum sineebar dëgg la